jox leen seen wàccuwaay waaye dina ma jafe kon damay jël samay nuyoo jox ko ki fi toogal xalif général des Mourides teg ko ci loxo ki fi toogal xalifu sëñ Fàllu Mbàkke sëñ Abo nuyu sama xarit sama sëriñ sëñ Xaadim Lo Gaydel nuyu sama xarit sama sëriñ sëriñ Amsatu Mbàkke bu pikkin nuyu njabootu te Tilala Fall bi nekkoon sama xarit nuyu également ki nga xamante ne moo ñu fi dajale muy sëriñ Cheikh ummi Mbàkke sëñ bi Ablaye Timbo di sunu maire di maireu Pikine yëpp di sa xarit daf ma déy nee ma soo waxee du ma wax ma ne ko déet demal yóbbaale ñu mu ne ma déedéet yow yaay meeru Pikine noor fa la Serigne Cheikh Oumy Mbacké dëkk loolu nag di chance bu rëy ma koy ndamoo fu ne yàgg ko ndamoo ci grand théâtre bii Pikine ba mu daj département de Pikine ba mu daj fukki commune ak ñaar doomu sëñ Fallou di fa yeewoo sama commune la yeewoo loolu ndam gënu ko rëy ñu bari ñee ma ci nag mu am nu ma téye ba mu jaaxal ma ba tey ba añ yi di ñëw sama kër ña mu woon ñoom jiili dama leen ne may sëñ bi nan la ma bëggee lan laa def ba mu bëgg ma mu ne sëñ bi nee na yàllaa la yàllaa leen boole Mbàkke maa ngi lay gërëm di la sant soxna maam bu sa Mbàkke sa mag maa ngi koy nuyu bu baax bés bu ñuy mujj fii nekkuma fi woon nga waxoon ko mu ñaanal ma ngir ma nekk maire soxna si maa ngi lay ziare Mbàkke di ci profité waale di nuyu soxna Mbène Mbàkke moom it di sama sëriñ di sama xarit di nuyu tamit sama beneen xarit di sama sœur di sama mag muy Cheikh Yacine Doucouré bu Cheikh Boubacar Doucouré di sagu pikin sëriñ Cheikh Oumy Yacine bii ba may campagne daf ma jël budget jox ma ko ne demal gañeti kon ma bëgg mbooloo mi yëpp xam taxawaay boobu Yacine Doucouré di am ci man sëñ Cheikh Ablaye Timbo mii moom mooy sunu maire ci pikin ñu koy sagoo jekkoon na sax ma bàyyi ko mu wax waaye moom moo ma jox ndigal ne naa wax ci turam kon ci turu département de Pikine laay wax ci tour ville de Pikine yëpp laay wax ak turu waa Pikine Nord ainsi ñi ma àndal ñëpp ci ñi ma àndal sa xarit sama soxna madame Diène mu ngi madame Diarra mu ngi fi lay jotu Diène dend ak sama secrétaire di sa soxna muy soxna Aji Faye ma leen di nuyu di nuyu sa njaboot teg ko ci loxo sëñ Galas mu yóbbaale xale yëpp Cheikh mi may ma ma beral nuyoo le professeur le ministre conseiller mi nga xamante ne moo fi représenté son excellence le président Macky Sall muy monsieur Koumba Ndoffène Diouf di un érudit nekk également kàngam nekk un tey ba mu ciy dajee ñu ne président Macky moom la yónni suñu xool daf cee sedd parce que xam nañ su coloré ak moom kon du ma guddal qualité de maire laay dalal ñëpp waaye nag mënumaa bañ a wax ci professeur Diakhaté li mu fi wax thème bi thème bi dañuy wax sécurité ak stabilité sécurité ak stabilité ci jamono bii nga xamante ne ñoo ngi en pleine campagne électorale muy le 23 tey pikin kenn defu ko ndax sa bés bi ku ko defit di nga ci wéet ndax ba muy door la ñu wax le 23 bu ci kenn campagne illa a grand théâtre ndax Serigne Cheikh Oumy moo woote bésu Serigne Fallou sunu comité électoral kenn tabu ci bës Pikine Ouest la ñu invité woon fii may wax ak yow. soxna Awa Diop mu ngi def meeting man la koy defal ñun la koy defal ñun ñoo nekk ci candidat yi Ablaye Timbo ngi daf ma ne ce n'est pas possible nañu ànd dem ci grand théâtre kon kon ñun bés bi rëy na ci ñun ndax sécurité Sénégal amul ma dem ma dëkk Serigne Touba la thème bi foofu lañ ko waroon mun a gàttale nangu ne Serigne Touba. mooy estabilité Sénégal Serigne Touba mooy sécurité Sénégal joxleen seen gëdd bu ñu bëggoon Sénégal am jàmm dañ koy nangu benn yoon rek mu jeex sa waajur Serigne Fallou wax nañ ko woykat yi da koy wax naan ku ne am nga Serigne waaye ku jàq woo fàllu man dama kaa woo woo di woo di jàq di ko woo muy faj ma jàq di ko woo muy faj ba ba ma daj ak yow. ba ma dajeek yow ngay faj waaw gars yi ku xam Amadou Diarra xam ne dofuma ku xam Amadou Diarra xam ne duma ma jaayil ku xam Amadou Diarra xam ne bëgg na lu baax te le président de la république daf ñoo sas tabb ñu ci Pikine nag yaakaar ci ñun ñuy wut ndam te sa waajur ji day joxe ndam Serigne Fallou Mbacké fii laa lay booleek moom ñun dañoo bëgg ndam jox ko président de la république du ma wëcc ba fële ñuy dem ci suuf rusuma wax ne yaakaar nañ la yaakaar nañ kilifa diine yi toog fii yaakaar nañ sa waajur kalaame ak moom nga wut may ñu ndam ci li ñu jëm wax naa ko léegi timboo ma ne ko xoolal saal bi bésu Serigne Fallou Mbacké Serigne Cheikh Oumy woote ko Pikine gisuma fi benn opposant bu ñëw jox ko cër c'est manquer de respect et de considération kenn mooy Serigne Cheikh Oumy Mbacké man nekkoon naa opposant di fi dajeeg waa parce que dama xam cëram kon bu ñu xamul cëram ñi xam cëram bàyyi seen lépp ñëw fii dafay jaadu ñu wax la sëñ bi am nañ yaakaar ci sa kër am nañ yaakaar ci kër sëñ Fallou te xam naa yaakaar du fa tajee du fa tase moo tax sëñ bi dama lay kalaamee ak Mouhamadou Fadal sa waajur ju tedd ji suñu soppe li ci des ma jël fi engagement Cheikh Khadim Lo Gaydel ci sot la bokk sëñ Amsatou Mbacké dompat ci sot la bokk soxna maam Bousso dompat ci sot la bokk dañoo bëgg mbër yi président Macky Sall tànn Pikine te boole ma ci pour ñu dem assemblée nationale nekk ay waayu Serigne Fallou ay waayu Cheikh Ibra Fall bañ ñuy wooyee maire Baye Fall dañoo bëgg suñu yaakaar bii ñu dénk la ko Serigne Cheikh Oumy Mbacké ngeen ñaanal ñu ñu am ndam loolu mooy sécurité Sénégal loolu mooy stabilité Sénégal parce que àdduna bi nekk ci guerre Sénégal tarul ay cohabitation ay daane naa gouvernement li xew Liban di fi xew dëkk bi kenn du tal dara la première stabilité c'est une majorité confortable pour ki nga xamante ne moom nga tuddee bés bi muy le président de la république loolu laa la bëggoon wax saydu di ci jégalu ndax guddu naa li ma wax nag maa am sañ-sañ wax ko fii laa ko yaakaar fii laa ko ñaanee koo yaakaar feneen demal feneen wasalaam. jërëjëf monsieur le maire Amadou Diarra jërëjëf monsieur le maire Abdoulaye Timbo waaye Serigne Cheikh délégation Cheikh Mamadou Mourtala dañ maa indilaat bataaxal ne ma